màggal Kazu Rajab édition 2019 ñu koy waajal bu baax a baax lii lee moo waral ñu amal comité local de développement ci teewaayu sous-préfet bu Ndaam Mamadou Mansour Diallo ak comité d'organisation bu màggal Kazu Rajab bi nga xam ne Serigne Ahmadou Badawi moo leen fa teewaloon préfet bi di ñëwaat ci disposition yi nga xam ne jël nañ ko pour màggal gi. Euh, on mettra aussi en place. Euh, barabu Serigne Fallou bi ku ne xam ne ne jamono bi dafa nekk ci chantier. ba tax na dañu fa jël matuwaay yu am solo ngir euh, permettre ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi ñu mën a def seen ziar ni mu waree. waa police ak gendarmerie li jëm ci sécurité bi ak circulation bi ñoom it daañ ci liggéey liggéey bu am solo ngir moytu embouteillage yi am ci corniche bi ndax nit ñi nga xam ne dañuy dem allier di ñëwaat waaye it jamono yi nemmeeku nañ ne ndox day manqué lool waaye bi tey daañu jël ay matuwaay ci ay camion ndox ak ay bâche yuy am ndox ngir moytu manqué ndox mi ci màggal gi. bâche à eau au niveau de de certaines familles. Kazu Rajab di guddi gi nga xam ne ci la Cheikh Mamadou Fadel Mbacké gane woon àddina di guddik ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci ndeyu koor Serigne Ahmadou Badawi di ñëwaat ci solos guddi googule. mooy bisub bis boobu sunu borom terale yonent bi sallallahu alayhi wasallam teraanga ju màgg jooju nga xam ne mosu koo teral kenn ci la ñu xéewale itam xéewal ci cheikhuna alxadim radiallahu anhu ak jullit yi ak ak ak ak humanité feeñal ci cheikh Mouhamadul Fadil ci guddi goog gi muy laylatul israi wal mi'raj liñ fi wax léegi dana waree ne guddi gi guddi xam-xam la woon danañ xam ne guddi gi moo sos jaamu yàlla dana xam danañ xam ne guddi gi guddi xarbaax la woon kon dafa mel ne kazu rajab dañ ko fayee Serigne Fallou ci woote gi nga xam ne wooteel na ko cheikhuna alxadim radiallahu anhu màggalu Tuubaa gu mag gi gannaaw boo xam ne sëriñ bi nag moo ko diglee loon boppam def lu ko boppam màggal Kazu Rajab 2019 mu fas yéene doon ci ndorteel mois d'avril bi ay taalibe yu takku dañuy bàyyi ko fu ne ci biir réew mi ak bitim réew ngir ñëw Touba Mbacke teewe màggaluk Serigne Fallou Guilé lii la sax moom moo waral am na yeneen ndaje yoo xam ne war nañ koo amalaat ngir jël mboole matukaay yi nga xamante nii màggal gi laaj na ko